jóg jëf mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxe muy euh, tournée nationale bu président Serigne Mboup di diisoo ak say nawle jëm ci waajal parrainage yi rek ak élection présidentielle yu 2024 yi mbokk yi ba léegi ñu ci région bu kaw Kaolack délégation bi demoon nañ fi nga xam ne moom moo di ci Kër Madiabel sëriñ bi Aliou Thiam amaloon fa mobilisation bu exceptionnelle dalal fa la président sëriñ boobu ànd ak moom ci dëkk ba yóbbu ko ci yenn kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk bokk na ci sëriñ Maye Niass mi nga xam ne kilifa diina la moom nag bi sëriñ Mbuub ñëwee mu recevoir ko daal di rafetal seen diggante waaye tamit euh, fas yéene koo ñaanal ci li nga xam ne moom lay euh, yootu mu jot ko te gën ci moom ñu ànd teewlu yëg nañ ne ñun. ñun kiñ xam tey ci kaw suuf. ñun ku ñu xam tey ci kaw suuf. te moo ñu gënal lu mën a doon. te nag moo ñu gënal lu mën a doon. muy Cheikh Mahi Cheikh Ibrahim. muy Cheikh Mahi al Khalifa Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. yëg nañ sa mbëggeel ci moom. yëg nañ sa mbëggeel ci kooku. waaye yëg nañ mbëggeelam ci yow. waaye nag yëg nañ mbëggeelam ci yow de. boo bëgg bëggutoon tam bëgg la ñu bëgg la ni la bëggee. mbokk yi ba léegi ci euh, diwaanu Kër Madiabel le président Serigne Mboup demoon na nemmeeku ji Serigne Lamp Mbacke moom Serigne Moustapha Bassir bi nga xam ne moo fa nekkal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke. moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides ñu amal fa jotaay bu am solo seriñ Mboup euh, daal di yëkkati ay kàddu leeral ko ay mébétam jëm ci réew mi waaye moom Serigne làmp Mbacke ginnaaw bi it euh, tontu na ko daal di koy xamal ne ko dana ko ñaanal te dana fas yéene ànd ak moom jàppale ko ci li nga xam ne moom la yootu muy njiitu réewum senegal amoon nañ ci yow yaakaar ci taxawaay bi ba ci mairie Kaolack bi yàgg naa cee waxtaan ak i kilifa. ngir bëggoon nga laaj ko. moo tax bi nga ko laaj itam. la ko jiitu. la nga fi daan jëf. ca Kaolack ak ci réew mi yëpp. ñëpp ci teg seen bët. yaakaar jooje moo tax. ñu jox la ko. yaakaar jooje nag. saa borom. yàlla na ko gën a mottali. ndax ni nga doxee. néew na maire yi koy doxee. ndax déglu nga saw askan moo tax lii ñu jublu itam bu ñuy déggee ne yaa ngi ciy waaj a dugg am nga ci ndigalul kilifa yi sunu xel dal na ci lool te fas yéene nañ ko ànd ak yow. mbokk yi ba léegi ci euh, tournée nationale bi nga xam ne moom la président Serigne Mboup euh, di amal fii ci euh, diwaanub Kaolack jamono bi amal nañ fi benn forum bu mag mu dëppee woon ko forum démocratie citoyenne ci cœur de ville bu kawlak ci mobilisation bu am solo boo xam ne fu ne nit bàyyeekoo na fa ñëw teewee ko mu janoo woon nag Kaolack waaye citoyens yi kenn ku ci nekk yëkkati ay questions yoo xam ne posé na ko mu jëm ci ay mébétam jëmee ci réew mi ak jafe yi nga xam ne jamono bi sénégalais ñu ngi koy dund président Serigne Mboup daal di ci euh, tontu ci jotaay bu yaato yaatu boo xam ne amal nañ ko ginnaaw bi nag am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko mu jëm ci solo si nga xam ne moom mooy euh, ajow ci euh, tournée nationale bi nga xam ne moom lay amal waaye lan moo taxoon mu def li nga xam ne moom di forum bi ñu ànd teewlu ko. d'habitude candidat yi dañuy def bu ñuy def woo journaliste yi leen di poser question mais ñun dañoo jël acteurs yi ñu ñu question je pense que question yi ñu ëpp yi ñu ci mooy nan lañ mën a def pour jàppale jigéen ñi ñun loolu lu ñu xam la. dañ koy def loolu tax liggéey boobu ñu doon def pour jàppale jigéen ñi ñu mën a liggéey moo ñu jox maire de Kaolack wax nañ ci wéru euh, wér gu yaram bi ñun protection sociale dañ koy rendre obligatoire et cent pour cent comme ni ko yeneen pays yi amee liggéey tamit li ñu gis mooy fexe ba li ñuy dundee ñu bàyyee ko ci réew mi produire ko ci réew mi bu boobaa emploi dootu ñàkkati ah ndax infrastructure yi mbedd yi Eh, état moo ko war a defal Ageroute moo ko war a defal waaye ñun dañ koy nangu Ageroute bu mënul ñun danañ def ñun dafa am lu ñu tardé loon mooy machine yi ñu waroon a jënd pour defaral ko suñu bopp loolu moo tardé waaye conseil municipal bi voté ne beneen budget bu 375 millions ak 550 millions pour ñu jënd matériel bi incha allah année prochaine budget municipal bi li muy ëpp ci li muy jublu mooy lu jëm ci assainissement ak lu jëm defaraat wuudi mbokk yi li lañ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee ci tournée nationale bu président Serigne Mboup diisoo ak say nawle waajal élection présidentielle yi ñu toll jamono bi ci parrainage yi dig leen daje incha allah ci yeneen i xibaar jërë njëf